ya ay ay yow seetaan waay la waay waay waay waay parti soci ay waay ay waay Senghor foo ne ay waay ay waay parti socialiste ma xool ba xam na bi noonu moo takkal moo takkal wax na dëgg de moo takkal kal ay waay ay waay waay waay waay eh, eh, eh, ay yow seetaan ay yow seetaan ndeysaan seetaan ay waay xaaral ma xool original bi xaaral ma xool original bi waa waa sëriñ ay waay ay waay maa ngi koy xotti di ay waay ah lan bi kum dal leen ak jàmm affaire wax ay yow seetal parti social ma jàpp wala parti socialiste mu ci guddi gu ba set jotagul nag nga xamante ne nii ay ñooñam fanaan nañ bés bu njëkk sa da bés bés mi ne ma bés bés nga xamante ni ku ma dugg boo génnee def bés boo ko wettee laaj ko Abdoul Karim Koso Wade bi mu génnee la def bés moo tax ki nga xamante ni mooy kenn bis daal di ko topp mais heureusement ba mënta bis leneen li nga xamante ne nii moom la ñu wax ak Khalifa Ababacar Sall gars yi tegoon nañ ne dafa seetaan ki nga xamante ne nii moom mooy rakam ja leneen li nga xamante ni gars ko parti socialiste lu doon ñu topp Bamba Fall du leen lu dul ñu ne Bamba Fall a rey Bamba du ci kenn ku dul Alaaji Moustapha Niass ak Tanor Dieng ñoom daal nekkeewuñ lu dul sibile loolu moo koy dalal dalal yegg si la. waaw Moustapha Niass dama ne ndeysaan xam nga ni tur wi kenn du ko solal tubay kanaaw nga dem géej wala nga taxaw yàlla ji di taw sa kaw waaw dama ne ndeysaan nen bu ko mbooloo bokkee bu ko baxal bu ko omelette da koy jël nga daal di koy mayonnaise may riim ngay riim keneen di riim ma ne étage fen boo gis ngelaw di nga koy daaneel loolu lay dëgg nag waaw tamit loolu ma ne la xale ñoo a pooba gitale gitale gital rom dal ñoo a pooba gitale gitale gital rom dal ñoo a pooba a gi ndal mën nga lambal bomba Ele bomba, ele bomba, ele bomba. Gàcce wéy jim jël Sénégal xam nga ne parti socialiste Senghor yëngatu na ñoo pooba gijoor gijoor ak gijoor